alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada amma baad ahibatil kiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu suñu mbokk téléspectateurs yi safo Plus ñu ngi nuyu kenn ku nekk di leen ziyaara di leen jox seen wàccuwaay tey jii ci seen émission spéciale waajal tabaski ñu am fi benn gan bu spécial di imam yor daara di jàngale période bii nii waroon naka fekk cëpp aj màkk ba waaye yàlla dogal na tey mu toog fii di ko paase ak ñun ñu nuyu ko dalal ko imaam asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم شيخنا وصلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه وعن خلفائه ومقدمه وأزواجه وذرته وتلاميذه wa man tabiahum bi ihsanin ila yaumi ddin wa baad assalaamu aleykum wa wa barakatuh aleykum salaam wa rahmatullah min bi salaam wax nañ la wa salaam wa rahmatullahi ñu ngi nuyu mboolem bi yëpp mboolem jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu umma islam bi yëpp leen di nuyu macha allah tabarakallah di la delloo nuyoo. macha allah yaa imaam jërëjëf ci nuyoo gu sell googu. ñu bàyyi la nga présenté wu ndax su mbokk téléspectateurs yi xam la. alhamdulilah maa ngi tudd Al Xusseynu Ba. dëkk Fuuta askanoo Fuuta waaye nekk fii ci Rufisque euh, nekk ci quartier quartier bi ñuy wax Fass Noflaye alhamdulilah yàlla dogal tey ñun nekk fa imam ratib yor fa daara ci suñu ëttu wayjur Thierno Omar Abdullah yal na ko fi yàlla yàggal ayyadahullahu wa nasarahu wa hafizahu amiin incha allah bi jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amiin incha ñu nekk ci itam ëttam nekk itam ci ndigalam macha allah fa tabaarakallah mhm. jërëjëf imam ci présentation bi imam dañoo jublu tabaski te ku wax tabaski wax ni ay ngëneel la tey jii nii ñun ñu ngi nekk ci fukki fan yi nga xamante ni ci lañ war a tabaski ñu bëggoon xam yan ngëneel parce que dañuy dégg am na ay ngëneel am na ay ngëneel ñu bëggoon nga faram fàccil ñu ngëneel yi nga xamante ni ñu ngi ci fukki fan yi waaw alhamdulilah fukki fan yi moom mooy fukki fan yu gën ci at bi yii mooy asra asratul asra zulhijja mhm. weer bi mu ngi tudd zulhijja euh, booy xool mooy décembre ci weeru hijriya comme ni ngay waxee weeru tubaab décembre ñëpp dañuy xam ni mois bi fi lay deewe euh, weeru xijriye di weeru islam bi itam mooy seen mois de décembre moo zul am na ci fukki fan yoo xamante ni nag fukki fan yu gën la fa tabaarakallah ndax bisu arafa ci la nekk ñii di def seeni farata fële ca makkatal mukarram ci fukki fan yi lañuy ñuy aj ndax aj dafa am zamanom zaman bi rek la ñuy ajee ci biir weer bi mooy ci zaman bi la ñuy ajee bu aj bi jeexee itam aj aj dootu fi amaat lu dul at bi ñëwaat ci fukki fan yi kon nag fukki fan yi mooy fukki fan yu gën fa tabarakallah mu am ci xam loo xamante ni tam yonente bi salallahu alayhi wa sallam am na lu mu ci lu mu ñu ci digal euh, ci saxoo gën a saxoo ci jaamu yàlla surtout nag ci ku di woor ci fukki fan yi lu am solo la ndax bisu arafa bi ci la nekk waaye nag ku mënul foor woor fukki fan bi yëpp bisu arafa bi moom mën nga ci woor ndax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xamante ne mu ne fukki fan yi maanaam arafa bi ku ci woor mm-hmm. sa at bi passé ak sa at bii di ñëw yëpp yàlla dina la jéggal sa bakkaar kon nag or ci bisu arafa lu am solo la lool lool lool lool lool kon nag ñu ngi ñaan yàlla ngeneel yu nekk ci fukki fan yi yàlla nañ ko yàlla defal te itam bis bu màgg bi ñuy xaar di tabaski ci fukki fan yi la nekk alhamdulilah ndax fukkeelu fan ak benn ci ci lay doon tabaski bi kon nag fa tabaarakallah ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiq wala fukkeelu fan bi mooy doon tabaski kon nag yàlla nañu yàlla may ñu matal lépp euh, xam nañu jamono bi way jur yi ñu ngi dang-dangi euh, fa tabaarakallah ndax matal seen feet ndax feetu lislaam la ñu ngi ñaan yàlla képp koo xamante ni yaa ngi ciy jéem yàlla la yàlla matalal lépp ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah yaa imaam ci leeral ci fukki fan yi ak ci tamit euh, taxawaayu arafa bi imaam Sénégal dañ fi am benn genre confusion léeg-léeg ndax dañuy taraf taxawal arafa tey buñ taxawalee arafa tey ëllëg si rek dañoo war a julli mm-hmm. mais léeg-léeg dañuy taxawal arafa yeewu noppalu bu ñu gannaaw bi ci topp ñu tabaski loolu ana la la ci sariya wax xam nga bisu booy xool benn bis ndax ñi aji makka ñoom ñooy def wuquufu arafa kon benn bis la ku ajiwul makka doo def arafa waaye nag dawla yi dawla yi yi duju benn ndax ñun ñu ngi nekk Afrique fëlee ñuy taxawalee arafa ci Asie la ne kon nag yàlla euh, moo mel noonu moo moo bindee noonu ñoom mën nañ gis weer wi fekk ñun duñu gis weer ndax ku nekk ci weer nga tënku waaye nag bu fekkee dañu tënku rek ci arafa bisu arafa bi ñun ñëpp arafa ba di ñëw mooy bisu samedi bi ñu ko jàpp ñun ñëpp ci lañuy boole def arafa bi ñoom nag bu ñu yeewoo dañuy julli waaye nag ñun bu ñu yeewoo comme ko gisuñu weer boobu la am fukki fan xam naa du ñu mën a julli waaye nañu xam ni arafa bi moom benn arafa la waaw waaye nag mënuñu tënku ni rek comme que makka julli na rek nañ julli bu fekkee makka julli na moom gis na weer te ñun gisuñu weer dëw la yi du benn mm-hmm. loolu itam fa tabaarak loolu beneen wax la waaw waaye nag nañu xam ni arafa bi moom benn arafa la benn arafa la ndax foofu lañ koy def mooy ci xeer woowu xeeru arafa bi foofu lañ koy defee ca makkatal mukarram waaye nag euh, doonul comme que def nañ foofu arafa tey rek suba ñun ñëpp adduna bi yëpp na julli déedéet ku nekk dafa tënku ci ci gis weer boo bu weeru koor ñëwee dañuy gis weer bu ñuy jeexal dañuy gis weer tabaski bi itam noonu la tam xarit bi itam noonu la yii mooy suñu feet ñun jullit ñi fa tabaarakallah yii mooy suñu feet léegi nag dafa tënku ci nga gis weer ñoom nag bu fekkee ñoom Euh, ñoom suñu nekkee ci guddi ñun ñu ngi nekk ci bëccëg wala ñun bu ñu nekkee ci bëccëg ñu ngi nekk ci guddi seen normal ñoom ñu njëkk ñoo gis weer fekk suñu weer loolu itam il faut ñi ñi xam ko waaw nag yàlla ci kéemtaanam ñun ñëpp ñu gisandoo àdduna bi yëpp gisandoo loolu itam yàlla da koy def léeg-léeg ñun ñëpp ñu woorandoo ñun ñëpp ñu jullandoo loolu itam moo gën waaye nag comme que bu ñu fàtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon xilaafu ummati rahma mooy mooy sama sama xeet bi lu ñuy lu ñuy lu ñuy werante di jiwoo ñiy def lii ñiy def lii mu ne loolu yërmande yàlla la suñu kaw mhm. kon nag sant yàlla bu fekkee yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam waxul woon lii rek dañuy am problème mhm. waaw waaye nag nañu xam ne bisu arafa bi moom benn la doo wax comme que ñun euh, altine la ñuy julli mhm. man altine la euh, dimanche laay wooral fi arafa déedéet suñu taxawalee fi arafa da ngay jàpp ne boobu mooy bisu arafa macha allah nga woor ngir bis boobu macha allah waaw fa tabaarakallah macha allah mm. léegi imaam mm. Mm, xam naa beneen laaj bi dañuy xaw a laal màkk tuuti mooy euh, ñi nga xamante ni dem nañ màkk aji aji fa màkk léegi ñoom obligatoirement dañoo war a rendi xar mhm. léegi ñoom bu dee ñoom mën nañ leen ko reyal fii aw euh, ci Sénégal wala foofu obligatoirement foofu lañ leen koy waaw euh, bu la neexee mën nañ leen ko rendil fii waaw bu la neexee itam foofu la mhm. waaye aj bi itam dafa am ay chart mhm. dafa am koo xamante loolu dafa war ci moom force da koy def foofu su demee am na loo xamante ni am na koo xamante ni itam da ngay am nga def boo amul doo def comme xaru tabaski nu mu waree ci yow fii waaw ah, am na benn benn aj boobu mu ngi foofu tudd tamattu tamattu boobu mm-hmm. tamattu la tudd boobu boo ko defee ba pare ala kullin bis bi il faut nga rey il faut nga def hadiya il faut nga génne ko soit yaa koy jëndal sa bopp nga rendil ko foofu jox leen ko mm-hmm. soit dafa am ay ticket naar yi nga koy jox foofu boo leen ko joxee ñoom ñooy dem jënd rendil la ko waaye nag bu fekkee nag defoo euh, boobu da ngay am nga rendi ko soo amul doo rendi macha allah tabaarakallah fa tabaaraka jërëjëf imaam imaam xam naa dañuy ñëw itam si julli ji ana naka la ñuy waajalee julli bisik tabaski yan condition la laaj waaw bisik tabaski eh, alhamdulilah sunna la boo xamante ni ñu ngi ko sunnaal ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ngeneel yu ci nekk itam ñu sante ko jal yàlla ñun xeet yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñun la ñu ko may eh, tabaski li ma la wax sànq feet bu rëy la mhm. feet bu rëy rëy rëy ci ñun jullit ñi mooy tabaski wax naa la eh, Euh, weer euh, décembre bële sax la ñu war a euh, ñun ñoo war a jël di jël décembre moo war a jël ci ñun exemple. waaw ñun waruñu jël ci décembre exemple waaye pour nit ñi mën a comprendre comme nit ñi loolu lañ mën a xam. loolu lañu gën a xam. Mhm. moo tax ñu wax naa la bii mooy weer bu mujj ci at bi. Mhm. kon nag bi mooy suñu fet ñun lislaam mhm. léegi nag da ngay gis ku farataalul tabaski. muy dem di farataal 31. 31 décembre te te du sa feet. dëgg la mooy sa feet. dëgg la ah, sunna la boo xamante ni am na luñ ci digle. bëgg nañ. bu fekkee yor nga mën nga nga am xar nga rendi ko mhm. lii mooy tabaski mhm. boo amee yére bu bees nga sol ko mhm. boo mënee incha allahu nga dem ci jullukaay bi nga julli ko soo demee ba foofu soo jullee ba pare nga déglu imaam bi ba mu def ñaari xutbam ba pare nga bàyyi ba imaam bi rendi xaram nga doog a dellu sa kër nga daal di rendi sa xar ndax attention bu fekkee dem nga ba foofu xar bi lu mu rëy rëy rëy bu fekkee njëkk nga rendi imaam bi xar xamal ni amoo xaru tabaski am nga yàpp waaye amoo xaru tabaski <laughs> kon nag lii mooy charte yi mooy boo yeewoo suba am nga sa xar ba pare sant yàlla bu baax nga sangu ba set xool yére bu bees waaw yére bu bees la ñu santaane ci tabaski doonul nag farata ci kuñ ku mën du farata du farata donc jarul ñuy rang ci tailleur yeeg yooyu loolu du farata sunna la ku mën comme que nag sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na fu mu doon wax sànq ma ne euh, euh, bokk na ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente sallallahu alayhi wasallam lu mu digle nga xar sa tànk tubay def ko mhm. yonent sallallahu alayhi wa sallam li mu doon def nga roy ko def ko bu fekkee yow wax nga ne da nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jaralu la yenn yi kon cofeel gi day day daal di des kon nag suñu feet la ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax lépp lu mu laaj ku mën nga def ko waaye ku mënul itam kenn loru la yàlla lorul kenn yàlla tegul kenn lu mu mënul surtout nag lu doonul farata bu fekkoon ne fardu ayni la loolu moom da ngay mën def mënoo def waaye nag lii doonul farata sunna la boo xamante ni dañ ko sunnaal ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak xeetam mhm. ñu kat ñu war ko bégee di ko kontaane fa tabarakallah mhm. te te itam ñu xam ni itam ci maam Ibrahima lañ ci fayoon mhm. ndax ndigal gi mu nangu woon ci suñu borom subhanahu wa taala waxoon na ren di doomam fa tabarakallah mu nangu ndigal li doom bi nangu ko yaay bi nangu ko mu dem bay rendi doom ji yàlla ne jibril gaawal nga jël xarfale ci aljanna nga remplacer ma ko bu paaka bi laal put ismaila loolu nag mu doon it alhamdulilah suñu ngëneel ñun xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah fa tabarakallah donc daal yàlla daal yembal na lépp laa yukallifu llaahu nafsan illaa allah imaam ci leeral yi am solo yooyu léegi imaam bisub jullit tabaski lañu nekk léegi man mën naa dajale sama njaboot ci biir kër gi ñu jullee foofu walla obligatoirement dama dañoo war a dem jàkka ja jullee ko foofu euh, jullee si biir kër gi xam nga obligatoirement mooy force Mhm. su ma juumul. waaw wàllu français. <laughs> waaw mooy force. wala. Mhm. <laughs> loolu doonul force sa biir kër doonul force ci jàkk ja. Mhm. wax naa la sànq sunna la. boo amee demal ci jàkka ja ndax aljamaatu rahma. yërmande gi nekk. loolu moo gën. nga dem ci mbooloo mi ci jàkk ja nga dem julli ji foofu. boo amul mën nga dajalee sa mbooloo sa sa say njaboot ci biir kër gi nga julli foofu loolu yëpp dina sell waaye li gën mooy nga dem ci mbooloo mi jàkk ja wax naa ko sànq nga julli ji fa nga génn dem ndax bisu iid gis nga euh, lislaam am na ci ndam yu bari mhm. ndax gis nga mu ngi ci biir yi am na ci biir sunna yi ñu ci wax li ñu ci gën a bëgg mooy boo jaaree yoon bii di dem di julli ji boo ñëwaat nga jaar yoon bale hmm. bul jaaraat yoon bi nga jaaroon bi ngay dem loolu politique lislaam la woon ndax boobu lislaam amagul doole hmm. biiru tabaski jouru tabaski bu ñu génnaan di julli ji wala jouru korité dañ leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ leen wax jaar leen nii bu ngeen di dem waaye bu ñu ñëwaat ñelee lañ jaar nii ñelee jaaroon nii jaar nii hmm. léegi nag su ko defee yéeféer yi comme que dañ doon toog di seetaan hmm. croiser seen bras di seetaan hmm. dañ doon wax yi julli nii nekk bëri nañ ñun dañu yaakaar ni ay toq lañu waaye ndekk ñi kon dañoo bëri loolu politique l'islam sunna boobu nag day dox ba tey waaw bëgg nañ ci yow bu fekkee jaar nga yoon bi dem ci jàkka ja boo ñibbi nga jaar yoon bale te itam wax naa la sànq bokk na ci charte yi nga yeewu suba teel sangu sol yére bu bu set nga dem ci mbooloo ma nga julli nga xaar imaam bi xutba nga déglu xutba bi ba mu renti xutba bi daal faaw ñu fekkee foo ngay fekkee ko waaw bu fekkee da dem julli foo nga fekkee ko bu fekkee amoo ngànt nga xaar xutba bi jeex gis nga bu yàgg boobu bu fe boobu jamono bi ni mu mel nii melul noonu boobu téléphone yi amul leneen amul bu fekkee am na dëkk bu ndaw dëkk bi amul jumaa euh, am na beneen dëkk bu mag bu nekk ci kanam ci misaal nga jóge fii dem Bargny wala nga jóge fii dem ñaajo ñun fii dëkk bi dëkk bu ndaw la amuñu juma waaye ñi nekk Diamniadio ñooñu am nañ juma jouru tabaski ñun ñii nekk fii du ñu rendi suñu xar lu dul ñu yëg ne ñoo ñu rendi imaam bi rendi na xaram wala ñu mu am benn waxambaane bu waree fii fasam dawal ba foofu jullee foofu ba xam ne rendi na ba pare mu ñëwaat wax leen imaam rendi na ñu doog a rendi kon nag li gën mooy balaa ngay euh, rassembler sa famille sa biir kër di jullee ndek ñoom mooy nga ànd ak ñoom ba ca jàkk ci lii mooy taaral islaam lii moo rafetal islaam lii la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam defoon lii la saxaabam yi nekkoon fii defoon lii la taabiin yi defoon suñu baax ñii suñu mag ñii nekk fii ñu mel ni ñoom maam Cheikh Omar ñoom maam Seydi El Hadji ñoom Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu lii la defoon seen njaboot yi ñu ko fi bàyyi lii la ñuy def kon nag nit day def li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon lii mooy taaral islam macha allah jërëjëf imam mm-hmm. ci leeral boobu mm-hmm. léegi imam mm-hmm. léegi taxawaayu soxna yi ci julli lan la ci lislaam santaane waaw alhamdulilah xam nga julli eh, soxna yi ñoom tam ci julli bi lañ bokk ndax mhm. jullit la jullit la ñu ne góor ñi nekkee jullit mhm. comme que feetu lislaam la ñu wax ñoom tam ci lañ bokk mhm. waaye nag soxna tam ndeysaan mënul boppam ndax dañ ko yilif borom këram moo yilif soxna li ko digal mooy mu toog ci kër gi mu toppatoo boroom këram toppatoo njaboot gi togg macha allah foo toppatoo kër gi mooy borom mooy mooy soxna yi ci biir kër Mm-hmm. bu fekkoon ni ñun ñun ñun xaalpulaar dañuy wax jam suudo jam suudo jam suudo mm-hmm. jam suudo mooy borom borom néeg bi borom néeg kër gi mooy jam galle mm-hmm. mooy borom kër masalan léegi nag macha allah li ko warloo ak moom ci tabaski bi ku góor ki moo ko war a teral ndax yow mii borom kër da nga war a teral sa njaboot ci biir tabaski mooy soxna si mooy say doom ñoom ñëpp nga fexe ñu bég ndax feet la waaye nag waxuñu bu ci kenn xuloo waxuñu bu ci kenn xeex ndax bis bi bisu balante àq la bis bi bisu yërmande mooy wàcc suñu kaw bis bi itam bisu cant yàlla la bisu jaamu yàlla la kon nag jàmm rek moo fa war a am kon nag yow mii góor fexeel ba nga xar sa tànk tubay ci loo mën nga fexe ba nga satisfaire sa bor sa soxna si biir kër ak sa njaboot soxna si amul leneen luñ ko digal lu dul boroom kër gi na dem indi xaram xottil ko ma masalal mu solal ko ba mu jekk fa tabaarakallah moom tam bu ngoonee mu defaru ba mu jekk moom tam mu jege borom këram fa tabaarakallah mu uuf njabootam mhm. loolu rek moo ci moo ciy rôlam macha allah waaw macha imam loolu leer na mhm. imam xam naa dañuy ñëw ci suñu question bu mujjeen mhm. léegi imam nee nga ñu nee nañu fukki fan yi fukki fanu ngëneel la mhm. wax nañ ci taxawaayu arafa mhm. wax nañu bisug julli mhm. léegi imaam fukki fan yi fekkee naa ko yàlla may na ma tal ma fekkee ko ma fekkee julli ji léegi man julli naa ba tàkkusaan ay 18 heures yooyu jot man ak sama gars yi may leen noo nañ dem buloo bi dañuy feetu maanaam feet la dem ci ay concert lu ñu mel ni ay soirée ci bisub tabaski léegi loolu ana lu ci sariya wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man asa allaha yowma al iid fa ka annama asaahu yowma al waid jeex naam lii la yonente bi wax man asa allaha yowma al iid fa ka annama asaahu yowma al waid nee na képp koo xamante ni mooy nga sa boroom ci bisug korité wala bisug tabaski mu ngi mel ni yaa ngi mooy sa boroom bisug penc fi ñuy atte nit ñi allahu akbar xam nga foofu ku nekk boppam la tal de xadis bu wér xadis saxi man asa allaha yawmal iid fa ka annama asaw yawmal waid te noonu rek la mel nag xamal ni soo soo soo soo soo mooyee sa bopp bisu penc mooy yowmul waid bisu ñuy atte nit ñi ñu ñin ñu leen di atte yow ngay tal mooy xam nga da ngay da ngay yokk sa sa punition léegi nag bis boobu noonu la mel wax naa la bis bi dafa am lu mu laaj jaamu yàlla lañ ci gën a bëgg baaloon di xaq neexoo jokk mbokk te itam am na bis yu nekk foofu yi topp ci moom mooy tabaski samba dem sàmm yum juul sàmm yum julli dem yum julli ñun xalpara loolu lañ ko xam nag wolof yi <laughs> ah. mooy bisug julli ah. tofa julli lendemain et surlendemain ak tof ak tofaat julli ah. ñett yi mm. yii yëpp bisu tabaski la mm. yii nag ñii di sànda ñii di sàndi jamra fële ci ci ci makka ci bis yi la ñuy sàndi jamra moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudde ayaamu tashriq ayaamu aklin wa shurbin wa zikrillahi azza wa jalla waaw mu ne bis yi mooy ayaamu tashriq mooy bis yi nga xamante ne macha allah bis yu leer la bis yoo xamante ni itam jaamu yàlla lañ ciy def te itam ñii di toroxal seytaane di ko sandi ay xeer ci bis yi la doonul bisu tabaski bi rek moo tax boo amul saxaar bisu tabaski bis bi ci topp boo amee tabaski nga mm-hmm. bis bu ci toppaat boo amul tabaski nga mm-hmm. ñetti bis yi lañ la wax bu fekkee amoo nag amoo waaye boo amul premier bis fexeel ba nga am ñaareelu bis boo amul ñaareelu bis fexeel ba nga am ñetteelu bis mm-hmm. boo amul ñetteelu bis teggeeku na la léegi nag am na nu ñu ciy jaamoo yàlla yow mii di jaamu yàlla muy ko góor muy ko jigéen farata boo julli bu fekkee dem nañ ci jàkka ji suba julli ñaari raka iid yi ba ñibbi kër ga tuusubaar moo ciy tes tegu bu jullee tuusubaar ba pare ba silmal dangay ngay kabbar ñetti yoon nga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar wala su la neex nga ne allahu akbar laa ilaha illa allah akbar walillahi alhamd wala nga ne allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wa allahu akbar wala bu la neexee nga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar nga def nii ñetti yoon takkusaan nga def ko timis nga def ko gée nga def ko suba boo yeewoo def ko deuxième jour nga defee noonu mhm. troisième jour nga defee noonu quatrième jour bo jullee fajar fii la yem mooy ayyaamu tashriq kon kay xam nga ni bés yooyu bésu jaamu yàlla la. maanaam ñetti fan yooyu. ñetti fan yi léegi nag nit warul topp feet bi ba du julli waxtu yi ndax lalee sunna la li nga topp sunna la léegi soo bàyyee farata bi ngir sunna bi mooy pinir nga sa bopp. pinir nga waaw kon nag bis yooyu amul amul li nga wax sànq amul buloo. amul xaw ma loo ko wax <laughs> bulo ah. waaw ah? parce que dañoo seetlu Sénégal. Ah? waaw amul amul amul ko yenn euh, kii mm. ci genre ci mel ni tabaski. wala mm. ci lu ci mel ni korité lañ koy mm. faral di gisee. Mm-hmm. donc xëy na ñàkk xam. waa boo bulowee ba ba bisu feet boo xamante ne bisu cant la. delloo yàlla suñu borom subhaanahu wa taala sant ko santa ah, santaleel ko yonentam yu tedd yi ndigal gi ñu ko nangul ci maam Ibrahima ba ci yonente bi alayhi salaam loolu wax dëgg yàlla loolu loolu doy na bulo fa tabaarakallah ah nga taxaw xam nga liñ ciy mag màggal mooy allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaw allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila lii lañ ciy wax fa tabaarakallah lii la bëgg nga nekk di ci saxoo ba imaam bi ñëw yow dem ci jàkka ji boo paree foofu wax naa la faratee boo jullee da ngay kabbar ñeenti fan yi ñetti fan yi ñeenteelu bis bi bu ñu jullee suba ci lay jeex lii yëpp ci tabaski la bokk doo ci woor mhm. yonent sallallahu alayhi nee na mhm. allati laa yajuuzu siyaamuha kama laa yajuuzu siyaamu yawmul iid doo ci woor mhm. ndax bis bu bisu julli bi ni mu daganulee nga woor bis bi ci toftalu bu fekkee tabaski la noonu la daganee noonu la doo woor bis bi ci toftalu doo doo ci woor mooy bis yu ñuy sànni fële jamra bis yooyu nag da ciy lekk da nga ciy naan da nga ciy féexal sa xol képp ku la defoon lu bon nga dem baalu ko xaq yow itam képp lu la defoon dara mu lu mu la métti métti bu la baalu xaq baal ko xaq te yàlla tax ndax yàlla baax la mhm. yàlla baal mhm. ñu bàyyi xel nag ci njaboot gu ndaw gi mhm. Sénégal ni ñu koy defee fii rek ngay gis ñu defee ko ni te itam moo tax bis tabaski bu ne jafe na tabaski buy am te defuñu annonce ci jàkka yi wala ci rajo yi sama doom réer na bari na ci waaw surtout ma doom bu jigéen bari na ci nga solal sa doom bu jigéen bu am léeg cinq ans jëm six ans seize ans dix huit ba ah. Mhm. solal ko ba mu jekk nga bàyyi ko mu dem. loo bëgg mu def. taxawaale ci liñ la digal yow mii parent bi mooy nga dajale leen ci biir kër solal leen nag ba ñu jekk. Mhm. xanaa nag nga ànd ak sa njaboot ngeen dem ci mbokk yi ngeen baalu ji xaq ñii dem ci seen i maam ñii dem ci seen i bàjjen ñii dem xam nga. Mhm. ñu dem baalu ji xaq waaye bàyyi leen ñuy tere ne ci mbedd mi comme sax loolu loolu bokk ci loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu yeddaat ci suñu bopp ñun ñun way jur yi ñu bañ xool lu neex njaboot gi tam ba ñu mooy ci suñu borom wala ba njaboot gi def loo xamante ni neexul suñu borom subhaanahu wa taala mhm. te su boobaa ñun ñii way juri ñun ñooy responsable yi kon nag mbir mi bis bi bis bu am solo la feet la feetu lislaam la mhm. yonente bi sallallahu na suñu kaw ñu daal di ko fata fa tabaarakallah màggal ko mhm. waaye nag waxuñ ci luñ buñ ci def li ci yàlla bokkul mooy yàlla moom baaxul rek surtout nag bis boo xamante yàlla daf ciy bégal yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ci kontaan ngir bégal gi ko bégal ci xeetam bi ngay ñëw nga naan da nga ciy da nga ciy ah, kon nag kon nag nañu moytu baax a baax digaluñu kenn mu mooy ci yàlla Mhm. lii daal mooy mooy tabaski yal nañu yàlla may ñu fekkee ci jàmm ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku munul yàlla itam nga xam ni munoo mhm. ku mën itam nga def te yàlla tax mhm. ngir roy Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li gën a bon mooy ku mën ba pare di def nii kooku baaxul kooku mooy égoïste lañ koy waxee c'est ça waaw ah, baaxul <laughs> ko baaxul waaye nag ku munul nag waxuñu la nga sàcc waxuñu la nga fen waxuñu la sax nga leb xaru tabaski kenn du ko sàcc kenn kenn du ko leb kenn du ko sàcc nga def munoo bul def bu lay même su fekkee yàlla dogal na ci weer wi sa soxna am na doom sa sànq rek am na ko ma laaj question bi sa soxna am na doom ci biir weer wi xaru tabaski moom mooy xaru xaru ngénte waaye nag nañu xam xaru tabaski moo mën a yóbbaale xaru ngénte waaye xaru ngénte mënul yóbbaale xaru tabaski ci misaal mu ne ma imaam bu fekkee altine moom mooy tabaski sama soxna amoon na doom mardi mardi maa ngi war a ngénte wala mercredi maa ngi war te benn xar laa am ma ne ko nga ngénte ci biir bisu altine bi hmm. xaru tabaski bi yóbbaale xaru xaru kii bi hmm. sharia may na la ko waaye nag xaru tabaski bi doonee doo ko rendi da ngay bàyyi ba ci ngénte bi nga boole tabaski déedéet xaru tabaski moom mooy duggal xaru ngénte bi waaye xaru ngénte bi du duggal xaru tabaski loolu itam foog mu leer kon nag yàlla sonalul kenn sonalul kenn waaw léegi nag fukki fu donte sax bisu tabaski ci fajar la am doom bu la neexee benn xar boobu nga am mën nga ko may tur ci bis boobu xar bi yóbbaale tabaski bi yóbbaale tudd bi est-ce que waaye nag xaru tabaski bi doo ko denc ba bis boole ci tabaski bi loolu du sell ah, ala kullin foog ñu bàyyi ci xel macha allah xam naa ni duuf ci nag bi xajul si cin bi mhm. xam naa da ngay euh, tàggatoo rek ñu mhm. joxante rendez-vous incha allah ba beneen ndax tey moom euh, téléspectateurs yi bëgg nañ loolu bàyyi rek nga tàggatoo incha allah alhamdulilah Eliman fa tabarakallah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ah, di sant itam sa personnel yi ñu fekk fii ku jiite tele bi ak ñoom ñëpp ñu leen di ñaanal fa tabarakallah yeleen ñaanal dina leen ñaanal yéen ñëpp yal ah, na ko yàlla def tele bu mag fa tabarakallah ah, yéen a xam lu ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal muñ rek insha allah lépp dina ñëw mm, yow itam ngay suñu rakk bu baax a baax mm-hmm. ah, fa tabarakallah doon itam ku ku xam mag mm-hmm. ku teral mag itam ku xam boppam vraiment ku incarné macha allah ñun loolu lañu ñu bëgg dëgg yàlla ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm wax dëgg yàlla suñu rakk nga mu su musoo musuñu gis yow lu xeebu wax dëgg yàlla fa tabaarakallah fu ñu nekk dañ lay ñaanal moo tax lu ñu xat xat xataat boo ñëwee soxlaal ñu mhm. insha allahu taala dañuy bàyyi suñu soxla yëpp ñëw taxaw la ndax suñu rakk nga suñu xarit nga suñu lépp nga yàlla boole nañ ci lépp di ñaanal nag suñuy way jur mhm. amuñu dul ñoom ah, fa tabarakallah mooy way jur yu jigéen yeeg ñu ak góor mhm. di ñaanal suñu kilifa bi Thierno Omar Abdallah ñun amuñu ku moom mooy suñu way moom mooy suñu sëriñ di ñaanal sama sëriñ personnel Thierno Ahmad Oumar fi mu nekk yàlla ko yàlla yërëm ndeysaan mooy suñu sëriñ fa tabarakallah ak mboolem di ñaanal ñoom ñëpp mhm. bàyyi ñu kenn suñu limee rek dañuy juum macha allah di ñaanal samay soxna yàlla na leen yàlla defal jàmm ak tawfiq <laughs> fa tabarakallah di ñaanal sumay xarit uh-huh. yàlla na leen yàlla defal jàmm macha allah di ñaanal itam macha allah samay xaritu bopp mhm. ah, di fi ñaanal itam ku mel ni xajja zeyna ba ñaan yo allah waɗan mo jaam ko debbo moƴƴo dimo fa tabarakallah moom ak ñi mu mhm. àndal yépp e denndaangal maana ñoom ñëpp daal ñoom ñëpp daal tabaarakallah macha allah di leen ñaanal salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam macha allah jërëjëf euh, yaa imaam imaam al Xuseyni comme ni mu ko waxee rek moom suñu mag la wax dëgg yàlla yàlla boole ñu mu jàngal ñu jàngal samay rakk jàngal itamit samay mag man ñi ma mag donc suñu mag la tey macha allah yàlla dogal moom moo nekk euh, ca kër ga yor daara ja donc euh, di imam di doon référence ku ku ëmbul te te te vraiment nit ku disponible la wax dëgg yàlla ndax instant yi moom moom mooy tànk góor gi moom mooy bëtu góor gi moom mooy lépp donc suñu góor gi itamit na Omar ñu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi suñu kanam mu yàgg fi lool lool lool lool wax dëgg yàlla moom mag mi nga xamante ne dañ koy tiitaroo yàlla xam na ko mag bi ñuy tiitaroo la donc kontaan na ñëw ci bu yow bu baax a baax a baax mbokki téléspectateurs yi li moo nekkoon seen émission euh, spéciale waajal tabaski di gërëm sama technicien alxaaji Boubacar ak Max ak euh, Sophie ci technique ci technique bi aussi di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous incha allah ci fan yu néew ci spécial waajal tabaski salaamualeykum wa rahmatullah